bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. commission bi nga xam ni mooy saytu wàllu weer wi te nekk ci biir coordination des musulmans du senegaal daje nañu tey comme niñ ko baaxoo defee doon saytu lu jëm ci xabaaru weeru korite gi gëstu nañ ko ci biir Sénégal waaye gëstu nañ ko ci àdduna bi yépp waaye amuñu benn xabaar bu wane ni weer wi na tey kon ñi ngi yëgal julliti àdduna bi yépp suba ci talaata ji le 9 avril 2024 mooy tolloog fanweereelu fan ci weeru koor gi 1445 gannaaw ëllëg àllarba le 10 avril kon mooy tolloog bisu korite gi muy bis bu njëkk ci weeru shawaal def nañ liggéey bi na ci njiital imam maam Góor Ndiaye mi jiite commission bi ci teewaayu tam oustaz Ibrahima Kane mi nga xam ni membre la ci xarakatul falaax di ñaanal jullit ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ce lundi 8 avril 2024 correspondant au 29 et après avoir recueilli des informations en provenance de nos correspondants régionaux ici donc à travers la sous-région toutes les informations qu'on qu a reçues indiquent que le croissant n'a pas été aperçu. Euh, par conséquent, nous déclarons que mardi 9 avril 2024 complétera le mois de Ramadan. Et après-demain, mercredi 10 avril 2024, Inch'Allah, sera le premier du mois lunaire, Shawwal, Corité 1445. Euh, la réunion s'est tenue donc euh, sous la présidence de Imam Mamgour Ndiaye, président de la commission d'observation du croissant lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal et en présence de Imam Ibrahim Khan, chargé de la prédication au niveau du, du mouvement Al-Falah. Euh, nous remercions de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi